Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh barakaatu kilifa yi fi teew di ànd ak ñun jotaay bi ci njiitul sëriñ Mamor Mbàkke moom Cheikh Mouhamadul Mourtada ñoo ngi di nuyu di lenziar, ziar di nuyu di ziar mboolem ñi ànd ak ñun ci bi ca teewuñu fi jaare ko ci jumtukaay yu xarala yu bees yi waaye nag di jiital ci nuyoo bi ak ziyaara bi sëriñ Sidi Maxtar Mbàkke mi sunu jëwriñ ci yoonu sëriñ Touba ginnaaw ziyaara bi ak nuyoo bi ñuy jéggalu tamit bu baax a baax ci yeex gee door liggéey bi ngir ay sabab yu génn sunu coobare ñuy ndokkeel tamit ci bis bi mboolem jullit ñi ci biir Sénégal ak ci biti di ci ndokkeel tamit rawatina mbokki taalibe yi bis la boo xamante ni boo ko xoolee ci anam mën naa jur mettit ak naqarlu waaye boo ko xoolee ci beneen wàll man caa gis mbégte ak sant yàlla boo xoolee ci li ñu tegoon ki ko waral muy sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu lañ ko tegoon ci ay nattu aki coona ci wàllu googu boo ko ci xoolee boo fàttali ko démb sa xol mën naa naqare waaye boo xoolee ci liñ ko ci fay ci ay xéewal ci aw yiw moom ak mboolem ñi nekk ci ginnaawam ñëpp ak mboolem ku ko sopp bu boobaa dangay fàtte la waraloon naqar wi sant yàlla bu baax a baax a baax mu mel ne nag moom moom mi ndeyu mbill gi Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ci ñaareelu fànn bii la ko xoole mooy xool li ko ci yàlla may ci ay xéewal ba tax mu fàtte la ko ci daloon ci ay natt looloo tax mu wax ni shughiltu bi shukuri an tadakkuri ma qad jara bayni wa bayna askari sant yàlla moo dox sama digg ak fàttaliku li xewoon démb sama digg ak soldaar soo sama jàppoon kon moom sant doy na ko sëkk yitte walis muy fàttaliku li xewoon démb wax ci ay anam yu wuute ni moom daal yàlla sant yàlla mi ko nangul liggéey bi nangul ko lépp li mu def sant googu doy na ko sëkk walis muy fàttaliku li wàccoon ci kawam ci ay natt loolu nag kon ndegam moom mi ndey mbil gi noonu la ko gisee jullit ñi rawati mbokki taalibe yi tamit nonu lañ ko wéra a kon lolu mo fi dajale ñi fi ñew ci Touba ndax santalé ko bis bi ni mu ko sakko won ci mbolém ko xamanteni mok mom ño bokk mbékté kon dana yalla ñu ndokkel mbolém jullit ñi ci bis bi ndax ñi fi ñew ñëpp rafet nañ jortini lolu mo fi indi rawati nañu def ko fi ci Touba nga xamanteni dafa melne mom moom na sant fi boromam ndax day wax ni nawaitu shukrahu lada daris salam wa inda ya bi jismin wa qilam amoon na yéeney sant boroomam ci ñaari dëkk yi nga xam mom la sanc muy daris salam ak touba gi kon bu fekke ne kenn ci njabootam muy Serigne Fallou radiyallahu anhu woote na ko ñuy daje fii ci Touba di ko ko di ko ko santale ni mu ko sakkoo woon kon day mel ne Serigne euh, Serigne euh, Serigne Fallou Mbacké radiyallahu anhu eggale na eggale na lenn ci yéene waaye juróom woowa di Serigne Touba radiyallahu anhu kon ci anam boobu la ñuy sante mboolem ñi fi teew di leen ndokkeel ci bis bi ndax bis bi seen bis la jotaay bi nag incha allah bu demee ni ñu ko bëggee nii la nar a tëdde danañ jox sëriñ abo abul baraka mbàkke mu ubbi ko ci alquran al karim bu ñu ci jógee ñu jox kilifa jotaay bi kàddu gi muy sëriñ Mamor Mbàkke moom Cheikh Mourtada mu wax ci turu sëriñ Sidi Maxtaar Mbàkke bu ñu ci jógee ñu jox suñu jëwriñ ci daayira bi daayira Rawdu Rayaahiin muy sëriñ Ahmad al Badawi Mbàkke moom Cheikh Mouhamadul Fadal mu wax dalal gàññ ci turu daayira bi bu ñu ci jógee ñu jox kàddu gi ki nga xam ne mooy modérateur bi mu xam lañ ñu tomb bi nga xamante ne moom lañ nar a waxtaane tey ak ki ko nar a def mooy kan bu yooyu jàllee nag incha allah dana jox kàddu gi yenn ci ñi fi toog ñu wax ci seen xalaat yokk ci liñ ci war yokk incha allah kon ngir bañ a téye kàddu gi lu bari ndax jotaay bi guddi na ba noppi dañuy daal di jox kàddu gi sëriñ Abu Baraka Mbakke mu ubbi jotaay bi ci alquran al karim sëriñ bi bismillah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 شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاب ربك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين آمنوا فإن اسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبقت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم يدعون إلى كتاب الله ليحكم يحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمس مسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون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 إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يت يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل عن ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم رسول الكريم جرجف سرين أبو البركة ci aaya yoyu nga ñu jangal ñu barké loko ci ubbiteeg jotay bi kon dañuy daali jox kaddu gi sunu kilifa serigne Mamor mbake mi kilifa jotay bi mu ubbi ko ci turu serigne Cheikh Sidi Makhtar mbake kon serigne bi kaddu gi mi ngi non bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد عبده ورسوله السيد رئيس رابطة روض الرياحين حضرات الشيوخ الكرام السادة ممثل الجمعيات الإسلامية والثقافية أيها السادة الحضور للمرة الثالثة عشر على السنة على السنة السنوية الحسنة التي اختارتها لنفسها رابطة طرد الرياحين لإيجاد هذه المائدة للعلم والمعرفة والثقافة أشكر وأهنئ الشيخ أحمد البدوي وجميع مساعديه بسم الخليفة سليم الشيخ سيد مختار باكي كما أهني وأشكر السيد المحاضر واللجنة التي اختارت هذا الموضوع المهم هو محبة العبد الخديم للرسول عليه الصلاة والسلام فحب الرسول عليه الصلاة والسلام إذن وأمر إلهي وواجب من واجبات المؤمنين لقوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وحب الحب عبد القديم للرسول كان من هذا النوع أي امتثال أوامر الله في نبيه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله وقد أخبر عن نفسه عن ذلك الحب وخال دمي وأهلي وأولادي الفداء له عبدا خديما له متكان للسند هذه غاية ما يعطي الإنسان لمحبوبه أي فداء نفسه وأهله وأولاده وفي آخر القرن الثامن عشر وبالتجديد 1813 قد أشار الله سبحانه وتعالى له بأن الباب هو محمد صلى الله عليه وسلم وقال الشيخ دلني الله على محمد وخادني محمد لصمد هذه الإشارات الربانية وتوضيحات لرسالة محمد الإنسانية والتبشيرية والإنذارية جعلت حبه يزداد كل ساعة للقيم الأخلاقية التي تضمنت هذه الرسالة وفهم جيدا تلك الإرشادات وتعاليم النبوية وقد بنى على هذه الأمور دعوته التجديدية والإصلاحية التي تتلخص في العبادة والعمل والعفو والتسامح وعدم التحاسد وعدم التحاسد والتعاون على البر والتقوى أيها السادة الكرام إذا لابد أن نقوم بعملية تحسين هذه المبادئ الإسلامية ضد المناهج والنظريات التي تغزو العقول ولا تفرق بين الدين والحضارة والبداوة فالدين الإسلامي ليس لتصحيح الأخطاء وتفنيد الأكاذيب وتكفير المؤمنين وإنما لمواصلة الجهود باحترافية تامة في صنع التاريخ وتوجيه مساره الإنساني صحيح أن ذلك مهمة صعبة لأنها تحتاج إلى سعة النظر وعدم التعصب في فهم الدين وإفهامه لأن الإسلام وسيلة لتحرير الفكر وانفتاحه وفهم الإنسان لنفسه وللآخر وله مبادئ أولية وقواعد أساسية لابد من احترامها في كل الظروف وهي حرية الدين في مسألة الإيمان والضمير لا إكراه في الدين وفي الختام نشكركم على حضوركم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ودمرا كل اعضاء بنا قبل الوصول لنا يا الله يا الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مبكي جوليجي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نيوغي ام بكتي دي لن نويو سي سي شيخ سيد مختار مبكي دي اندك يين اوبي بس بي غودي غو ماغ غي nga xamne bu am solo ñu di ci ndokkeel suñu Cheikh Ahmadul Badawi mi nga xam ne moo ko jiite te di ci sonn lool di ci boole tamit ñi nga xam ne yëpp ñoo ko ci jàppale ak membre yi nga xam ne ñoo ko ñoo ko moom a ko seq ñu ngi koy nuyu di leen ndokkeel ci bis bi di leen ci sant ci taxawaay bu rafet bi di nuyu nag kilifa yi fi nekk yépp di leen jégglu tamit ni ko sëñ bi waxe sànq guddi na waaye li may wax waat bu jot rek mooy lii moo leen gënal bernde bu ne ndax ku ne xam na ne tumuraankewu leen lekk fenn fa ngeen jóge waaye ngeen dajaloo fii te yàlla rek tax ak guddi boroom bi nga xam ne dañ koy santale muy guddi goo xam ne xam-xam la waaye ak dolli ko la itam ci wàllu li ñuy wax saqaafa te muy baat bu xóot bii nag niñ koy waxee rek at bu jot yàgg mbir mi yàgg na defe naa ne at bi mooy fukkeeloo at ak ñett ci li nga xam ne baaxaw rabita bi nga xam ne mooy riyaad rawdu moo ko xalaat di ko def euh, ñi ngi koy ndokkeel di leen ndokkeel ci loolu nga xam ne yéeg yéen ak ko bokk wala sax yéen ko moom ndax yéen yéen lañ ko tax ñu di ko def eh, di sant bu baax it ki nga xam ne moo war def conférence bi di sant it commission bi nga xam ne ñoo tànn sujet bii di wax ne bëggug Cheikh Amadou Bamba gum bëggoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di lo xamne ne bu ne buñ ne bëgg rek day baat bo xamne ne yalla yàlla xam nañ lan moy lan la am niwobul ci ci nit kuy jëm ci yalla ndax bëgg ci xol lañ koy def te xol bu xasse fess leneen du ca dugg motax bëgg dafa nek grade bu am solo ci nitu yalla yi ndax ku ko def rek xamoto leneen fo len fo nekati mënato bëgg dara te ci aduna kon koku cheikh amadou bamba nim ko defé yentou sallallahu alayhi wasallam dafa deppo rek ak lu ko sun borom diglé ndax mom lu muy def lu nek da cey xol la ca sun borom nako su fako sun borom tek lolou yit ndax yalla mo ne monu gën monu gënal monu wara gënal sun bop kon dan ko wara bëgg bëgg go xamne moy raw sun bop loolu yi tamit dafay wane ne topp yàlla la ndax sëñ Tuubaa tamit lépp lu muy dugg ak topp yàlla la cay xool moo tax mu bëgg ko ba jox ko léppam sama deret samay ñooñ samay doom sama lépp jox naa la ko defe naa ne loolu mëne su ko weesu ci bëggeel euh, ci Euh, ci 1893 ci la bindoon xasida gi nga xam ne ci la lii bokk moo wax ne sunu borom moo ko won yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi wëlbati delloo ko ci sunu borom kooku tamit lool kese tax na xolamit fees ci loolu muy lu ko jar ndax li tax xam na ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam xëy na mbindeef la waaye yàlla mi ko tànn ak lim def ci moom ci loo xam ne moo war a tax nit egg fa mu war a egg ci àdduna ak ci àllaaxira muy mission boo xam ne lépp ci biir bu la waree wax ne boo jaaree ci lii sa dana sedd waaye du sax ca loola ndax boo dëkkee ci nit lu ne nga ne ko sa xol sa xol day sedd rek te doo ko wax lu koy tàngal bu yàggee mu defe ne lu def rek xol ba da ca war set man maanam dafa war a am njër war a moo tax sunu borom di wàcce wàcce ko ci muy bégle waaye itam di xuppe loolu itam valeur yi nga xam ne coofeel gi tam de dooleeku di dooleeku toujours ndax valeur yi nga xam ne moo am ci ci nga xam ne mooy yi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu ci jikko nga xam ne sëñ bi moom jë na ne loolu kese ak li nga xam ne moom la indi moom rek moo mën a tax doomu aadama mën a tege ci yoon woo xam ne dana mucc tey ak ëllëg loolu sax moo tax bi mu ñëwee te ñuy def te muy def li muy wax tajdid dafa jël tànn gëstu xool ne lépp jariñ la sax waaye am na anam yoo xam ne lu ca taxaw kenn dutu ko mën a bëmax mooy jaamu jëf fexe ba baax fexe bay ba ba ba rafetal sa xol fexe ba bañ a soxar fexe ba tamit di dimbalante ak yu demee noonu nga xam ne lu ci nekk daf koy lim lenn lu ci nekk ci loolu dafa bokk ci piliers yi nga xam ne eh, bokk na ci eh, li nga xam ne moom la yonte bi sallallahu alayhi wasallam sëñ sëñ taxawal li mu kon nag ngir bañ guddal waxtu wi ndax guddi na loolu fokk ñu jéem koo proté ñu jéem koo sange ndax moy principe l'islam yi nga xamne ne te bayyi xel nak théorie yi nga xamne ne ak ñi nga xamne bo len xolé dañuy dañuy dañuy jaxase xel ndax xamé wuñu diiné ak civilisation ak kaw kaw kaw kaw du dëkk Allah du nekk ci Allah waye moy wax loolu fu la neex wax loolu neex waxe fu la neex waxe ko fa ku la neex it nga wax ko ba nopi defé na yaangi ci dëkk loolu mooy jikko kaw kaw loolu lépp nag lislaam ak ñi koy xeexee ci wan an googu ndax dine lislaam du crise rek defoo lii waroon ngaa def lee waroon ngaa def lee loolu rek taxu ko jóg eh, lu loo xam ne wóor na leen ne aw fen la it nga ne ko fen nga kooku it jaru ko ndax luy fen ñëpp xam nañ ko jaratu ko waxate koo xam ne tamit nee na la gëm naa nga ne ko gëmoo tamit jaru ko ndax kenn waru koo contrôler ku dul ki koy def ak ki nga xam ne moom ko koy def lu mooy nag li am solo mooy fexe ba farlu fexe ba defaru fexe ba laxasaayu laxasaayu boo xam ne nag la nga koy def da nga koy xam day doon laxasaayu gu dëgër boo xam ne boo ko xëccee du dagg fexe ba li nga xam ne moom la sëñ tubaab moom moo def ak ñi nga xam ne ñoom la seqaloon liggéey boobu ginnaaw yonent yi yonent bi salaa salaam loolee nga mën a fexe ba bàyyi ci sa sas boo xam ne la leen histoire teg ba ñu di leen waxtaane di leen sukkandiku ci ñoom loolee ñu mën ko mën ko ko defaral leen ko ba bu ëllëgee loolu mën wéy lu jafe la nag ndax dafa aaj xool bu baax mën a mën a mën a mën a gis ndax xool rek baax na waaye mën a gis léeg-léeg mu jaat mu mu jafe léegi-léegi nga mën a gis waaye doo gis fu yaatu as xat xat xat tuuti rek ngay gis fu sa bët yam nii rek ngay gis waaye doo mën a xool ndax doo ko xool ak bañ a nekk ku fanatisme ci wàllu diine ci dégg gi ak déggiin wi léeg-léeg it mu am nga di ko seetale na nga ko gisee rek ak nam la neexee jëmale ko ci sa bopp nga xam ne noonu kook loolu lépp dafa nekk loo xam ne dafa wuute ak bëggeel gi nga xam ne moom la nit war a bëgg yonent sax ndax bëggee lu yonent du bëgg naa ko ci sa xol rek da bëgg ngir lim la indil te loolu sëñ Tuubaa googu bëggee lam googu la defoon ba tax mu tëral loo xam ne lii ñuy wax lépp mën naa wax ne manes na cee mucc ci yor woowu eh, mu mel na kon fexe ba yi tamit ba ndax lislaam dafa ubbeeku lislaam it may na nit ki mu fexe mu jéem a xam boppam waaye bu dee xam boppam meeg yam ci moom kese it te jéemut a xam keneen it bu yàggee fanatisme dana ko dugg bu fekkee sa bopp rek nga war nga bëgg a xam mais bëggoo xam keneen bu boobaa dana gàtt lool te loolu tamit du tax yaatu eh, kon li nga xam ne mooy am solo mooy ñu fexe ba dëppale ciofel googu nga xamne ne moom la sëñ Touba beug yonte bi salat ñu gëm ñu firé ko ne nek na bëggeel go xamne ne du bëggeel pour da ko neex rek waye dafa bëgg ngir lim indi te mu am njariñ te man mën jariñu nit te nit di ay jaamu yalla yo xamne ne rek lañu lañu soxla lolé lolé nak fokk ñu warmaale ko fexé ba nit ki ñu bayiko ko ci gëm gëmum fexé ba yaatalal ko ko fexe ba yem ci fi ci diine yem nga xam ne ku ne la nga ne bu la doyee rek boo ko mënee labiré ci la nga xam ne jàpp nga ne moo ko moo ko la nga xam ne moo ko gën nga defal ko ko boo ko mënul nga maandu ca nga bàyyi ko boroomam loolu kon ñu ngi jégalu ndax ëbbite la te guddi na ñu ngi sant ñëpp nag niñ ko waxee ci turu sëriñ bi di leen dalal di leen xam ne xëy na li may wax rek gan euh, am na bu bu ñëwee nga mën ko bàyyi mu noppalu waaye am na loo xam ne boo ko ca woo dan gan gu bëggatu noppalu ndax nopp seen noppalaay yéen ñii fi daje mooy ñi nga xam ne ñëpp lislaama leen njëkkati ak ñi nga xam ne ñëpp ci wàllu googu lu ñu yëngatu ñoom seenu noppalu mooy ñu bañ a gis luy luy dolli loolu buñ ko gisul rek seenu noppalu bu feeg ñi ngi gis loolu rek loolu duñ ko mën a tuddee ak noppalu kon nag loolu ab bànneex lañ koy tuddee waye seenu cion nak moy ñu baña gis dara kon nak ñu ngi leen di ndokkeel di leen dalal di ñaan yalla ngeen ex ci jamm di ñaan yalla ngeen dal fi ci jamm di ñaan yalla ngeen wat ci seeni barab ci jamm te fekk fa jamm di ñaanit niñ koy wax rek at bu jot sëñ sëñ ahmadul badawi seen taxaway ci xalaat bi di lo xam tamit mom rek moo am solo xana rek fexe ba yu melni tamit di gëna yaatu rek di gëna yaatu di di ndax eh, ku dugg ci njaboot yi rek ak ci ñii fii toog da ngay dem ba sax yow dangay ngay am kersa ndax bu lee amee kenn du ñëppay ñëw te xam nañ coono coono barab bi xataay waaye doo ci gis kenn ba mu yëg ne sax bu sonnee sax dana ko rus loolu nag dafa nekk ay valeur yoo xam ne nitu ku gëm yàlla rek te xam li la yëkkati rek moo ko mën kon yàlla leen yàlla fay loolu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu bismillahi rahmani rahim وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين وبعد الشيوخ الكرام سرين مامور مباكي ابن الشيخ محمد المرتضى أصحاب سماحتي ممثلي إخواننا الموريتانيين أيها السادة ممثلي البيوتات الدينية والمنظمات الإسلامية أيها الحضور الكرام إنه لشرف عظيم لي أن أتقدم إليكم باسمي شخصيا وبوصفي منسقا لأعمال دائرة روض الرياحين مع كافة أعضائها بأسماء عبارة الترحيب بكم في داركم وبين أهاليكم وإخوانكم في مدينتكم طوبى المحروسة قائلين لكم أهلا وسهلا كما نرحب بكم في هذا الملتقى العلمي السنوي الذي يعقد بإذن من الخليفة العام للطريقة المريدية الشيخ سيد المختار مكي أطال الله بقاءه لتدارس موضوعات هامة وقضايا مشتركة بمناسبة الاحتفال بذكرى تغريب قدوتنا وقائدنا الشيخ أحمد بن محمد بن حبيب الله رضي الله عنه المشهور بخديم رسول إلى جابون وننتهز الفرصة هذه لتقديم تشكراتنا الصادقة لكم على حضوركم لهذه الجلسة معترفين لكم بالجهود الكبيرة التي تبذلونها والمشقات التي تعانونها للمشاركة في هذه الحفل وما هذه الجلسة أيها الحضور الكرام إلى واحدة من نشاطات دائرة روض الرياحين التي تنجز خلال المقل بتعاون مع اللجنة المنظمة ويعود الفضل في تنظيمها ونجاحها إلى جهود أفراد متحمسين لا يستسلمون لمشقة ولا لصعوبة في خدمة الإسلام والمريدية واسمحوا لي أيها السادة الأعزاء بتذكير بأهم أهداف دائرة روض الرياحين وهي نشر الثقافة الإسلامية العمل على نشر تعاليم الشيخ القديم توثيق روابط التعاو... روابط الأخوة والتعاون بين المسلمين توثيق روابط الأخوة والتعاون بين المسلمين تعزيز القيم الثقافية للمريدية والحفاظ عليها ونحيطكم علما أيها السادة الكرام أن للدائرة رود الرياحين نشاطات علمية وثقافية عديدة ومتنوعة على مدار السنة منها على سبيل المثال لا الحصر إقامة محاضرات وندوات وإحياء مولد نبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وإصدار كتاب من مؤلفات شيخ الخديم رضي الله عنه محققا وكتاب هذا العام الذي تناولته الدائرة بالتحقيق والطبع والإصدار هو مواهب القدوس في نظم نثر شيخنا السنوسي وعنوان المحاضرة الكبيرة هذا العام هو محبة الرسول الكريم عند العبد القديم محبة الرسول الكريم عند العبد القديم وقد تم اختاره لعدد من الأسباب منها أهمية أهمية محبته صلى الله عليه وسلم في حياة المسلم لأن كمال الإيمان يتوقف على هذه المحبة قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من واله من من والده وولده والناس أجمعين لا يؤمن والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين بيان المستوى الرفيع لمحبة العبد الخديم لمخدومه صلى الله عليه وآله وسلم قال شيخ الخديم رضي الله عنه محت محبتي المختار سيدنا حب المغاني والأهلين والولدا وقوله رضي الله عنه خدي وقاية لرجل المصطفى عن شوكة ولا يضاهي العقرب خدي وقاية لرجل المصطفى عن شوكة وما يضاهي العقرب تذكير المسلمين عموما والمريدين خصوصا بضرورة هذه المحبة بحكم كونها وسيلة لتحقيق السعادة في الدارين وبالمناسبة تعلن دائرة روض الرياحين تعرب دائرة روض الرياحين من جديد عن امتنانها العميق وشكرها الخالص والصادق لكافة الأفراد المساعدين لها ماديا أو معنويا من بعيد أو من قريب وفي مقدمتهم الخليفة العام الشيخ سيد المختار حفظه الله ورعاه الذي كان ولم يزل يزاند الدائرة معنويا وماديا والشيخ محمد المنتقى ابن الشيخ محمد البشير سند الدائرة القوي الذي يشارك في هذه الجلسة من خلال أخيه الشيخ إسحاق مكي ابن الشيخ محمد البشير والشيخ ممور مكي ابن الشيخ محمد المرتدى رئيس شرف الدائرة والشيخ محمد البشير ابن الشيخ عبد القادر رئيس اللجنة المنظمة للمقل وفي ختام هذه الكلمة نخصص الشكر لكافة أعضاء روضة لما يبذلونه من مجهودات وتضحيات في خدمة المريدية داعين الله لهم بالتوفيق ونيل ما, بي ونيل ما دعا به الشيخ الخديم رضي الله عنه لكل من يخدمه في قوله وقض حوائج الذين داموا في خدمتي وهب لهم ما راموا هب للذين سارعوا في خدمتي فلهم الديار وسط الجنة وكل عام وأنتم بخير والسلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم ورحمة الله ناتي قتل لك نيو بباخ باخ دي سنت كي ترو سنو كلفة جبتاو دي سريج مامور ابن الشيخ محمد المرتضى تيابل في الشيخ سيد المختار وقت كي ترو سريج بي دلال لين جوتلي كادوك سريج بي kon noonu dañuy doy la loolu mu wax rek ndax li mu wax mëne ne su ak dara masawu leen coono sant ñaan rek sunu borom daf ñu taw tawféex ci liggéey bi ba leen ci yaakaar lépp ñu amee ko noonu asalaamaaleykum wa rahmatulah